نسمي يا يا كريم وهب لمن بينا جما يروم ربي إبراهيم وبإبراهيم اغفر سنه بوقفني رجما وكن بي موسى وبجاه عيسى وقيان الدنيا هرابوسا وبي محمد رسول الله عليه خير صلوات الله ثم عليهم لياب إيمانا قد ساب الإسلام لسانا يرمة الصديق والفاروق جلي بالإخلاص وتوفيق بحق أسمان أخي النورين وبيال والد السبتين أبلي في الدنيا يما الأخرى يا النور والهلو والمسايا بحق تلحة وبسبير وأخ سعد ناجني من ديري وبسهد وإمنعه في النجني من كل ما خافوا من فتني وبأبيهم وبعدت عن ما يفيد نسمي عسى يا كريم bu doon ab jongante ñu ne tey jii yoonu murit waaye lislaam amatina ndam lu rëy li koy firndeel di mbooloo bu takk bu ñu nemmeeku fii ci Touba rawatina ci bésum màggal gile fu ne taalibe yi daal di fay bàyyeekoo li ko dalee Ndakaaru Cees ba Tambacounda jëm ci dëkk bu sell bi loole ngir fas yéene wuyu ki waral bés bi Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké ñu ngi bàyyeekoo ba Tamba. ñëw teewe si màggal ndok ndokkel Serigne Touba di ñaan yàlla mboolem ku fi ñëw rek ñi ñaan yàlla lépp loo fi ñaan yàlla suñu borom nangul. li ñuy dugg ñun barabu sëñ la ñu njëkkee mais barke borom Touba laa la giñal tuuti ma faatu mais damaa xam ne soo faatu woon it lépp bambala Bamba la da koy ah, bu ren ak daaw bi ah ren neex na kàr macha daaw tamit kàr macha allah ngi sant wér man de maa ngi ba Tamba ñëw màggal si. dañuy wax alhamdulilahi rabil alamin jërëjëf sheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul sant yàlla bu baax nag ñun ñoo ngi tudd Serigne Abdou Karim fay jóge ba Thiès quartier Madina Fall ñëw siyaare si siyaar Touba siyaar gaa yëpp am ko ak mbégte bu baax a baax a baax a baax. sëñ Mountakha mbégte mi la woote ñu ñëw takk maski yi respecté mesure barrière yi siyaar si jàmm ak salaam bëgg a demaat si jaam ak salaam. pas-pas ak ngëm gu mat sëkk la taalibe yi sàlloo bàyyee ko fu ñëw feddali seenu taalibe te yeesal seen ak ku takk sa masque ngir jàmmarloo mbas mi daal di amal seeni ziyaar. màggal ren ji amul màggal bu ko dax parce que sëñ Fall ma yaakaar man nag sëñ Fall rek mooy suma lépp waaw tudde naa ko te bëgg naa ko tuddewaat mais dëggantaan màggal bi amul leen lu ma si wax lu kontaan. mais barabu Sëriñ Fallou nga ne mais barabu Sëriñ Touba bi li fi am ak li fi nekk barke Sëriñ Bamba de bu déwénee ngay xoolaat. Ah, soxna yi desuñu benn yoon ci màggal gi ah, fii ci xabru Sëriñ Touba mbooloo mu takku lañ fi nemmeeku niki noonu soxna Ngoné Diaw féetee ci wàllum organisation bi itam di bàjjenu gox ñëwaat eh, ci bés bi rawatina mobilisation bu jéggi dayoo eh, bi mu gis. ñu ngi ci liggéey bi rek waaye nag wax dëgg yàlla taxawaay bi rafet na organisation bi jaar na yoon nit ñi respecté nañu masque yi ñu ngi jël gel yi ah ñu ngi jëfe ndigal li daal comme loolu la sëriñ bi digle ñun ñoo ngi ci ndigal yi bërki dem ba léegi waaye vraiment macha allah ñu ngi koy màggal màggal gu mucc ayib. kontaan nañ trop ci nit ñi ndax niñ leen mobiliser nangul nañ ñu feebar bi am na te nangul nañ ñu ko ñun ñuy wax ak ñoom te ñu ngi ñuy déglu kon loolu mooy suñu jàppale. ñoo ngi sant yàlla def nañ jàmm salaam ñëpp takk nañ seen masque ñëpp ñoo ngi ñëw jaare ji ñoo ngi ñibbi jàmm ak salaam waaw loolu yëpp soo gisee mi ngi mbooloo mi dafa gën a takku jógee ci jàpp ñeenti millions. jëm ci li nga xam ne mooy juróomi million ngi taalibe yu teew uh, fii ci Touba. waa màggal gi soo xoolee chaque année da day yokk mbooloo mi fii am bi estimation yi su mu génnee doon def ay 3 virgule 7 million yoo xam te ne ay pèlerins ñooy ñëw 2020 bi ñu gis 5 million kon ñu xam ni sëñ bi li ñuy wax amul tànki ginnaaw tànki kanam la am te loolu woote ne ko suñu xoolee Màkka ay 2 millions moo fay dem tey bis bi Sénégal ñu am 5 million de pèlerins. ñu xam ne lii du hasard. distance bi yàggul mais dama ne ren la a bëri nit parce que sëñ Fall. yor nañ ko ak masque ah, dafa mel ni nit ñi dañ ko xamul woon me bi ñu déggee cas yi dégg dëkk yi ah lu tol ni aji màkk ku ne gis na ko ñu tëj jumaa yi tëj jàkka yi tëj màkk kon bu ñu demee tey suñu borom dimbali ñu ba muy wàññi suñu dëkk ba tey ñu mën a feete màggalu Serigne Touba gi. lii day wane bis Serigne Touba tànki kanam la waaye amul tànki gannaaw sant yàlla baax lépp luñ suñ borom fanqal sëñ Tuubaa fanqal nañu ko. yoonu murit di wëy di law taalibe yi di gën a jokk ci Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Xaadimu Rasuul ak i njabootam mu mel ni ren ji bu ñu weesoo ni ñu tëralee wàllum organisation bi eh, ngir xeex mbas mi am na lu bëri lu màggal gi jur ci wàllum koom ak yeneen loolu yëpp eh, di ay njàngat yuñ ci mën a jëlee. mbooloo dëgg yàlla li ñu gis ren gisuñu ko te yaakaare wuñ ko woon ni ndax defe woon nañ ne comme jàngoro ji malgré mi ngi dox dañoo defoon ni nit ñi dinañu xaw a ragal feebar bi bañ a ñëw waaye dafa mel ni doole ji ñu amoon daaw waxuma la double bi mais multiple bi laa lay mën a wax ndax li ñu gis ren wax dëgg yàlla kawe na suñu njort lool lool lool. ñaan daal képp koo xamante ni ñëw nga fi lépp loo yootu nga jot ko tam nekk sa njiglaay suñu borom nangul ñu ci ñuy màggal nangul ñu ñaani yokk Dakar Actu International àdduna bi yëpp di ko bëggee.